li tax mu doon gën gi imaam ak ni jëmmam ni doog ju daam ak ni meloon ci alxuraan danaa la wax ci ay tukkeem danaa la wax ci ajam danaa la wax it ko lëreem danaa la wax subam ba ngoon Cheikh Abdou Khader sang bi laa bëgg way man dongo bi ndax xaaju xaw bu jëkk bee daa am lu too ni dugul woon cheikh abdou xaadar sang bi laa bëgg way man ndongo bi ndax xaaju kaw bu jëkk be daa am lu toon lu dëkkul woon umas ni jàkk rek ci moom sag jaax la jeex seex jiili moom umas di tàllal ay loxoom dootul dugaat di sàkku ñaan ku toog fi moom sa xel ma dal ngir ñépp daal lay bàyyi day daal di féexal yow sa xol laaj la balaaj la say cosaan kooku diwa moo ana diw nga daa jaaxle naa ko diw mu daal di lay dàgganti yow leeral la nam loo xamul woon xam li tax mu doon imaam dafa bëggoon xayril anaam sëñ ko fal xayrul imaam danaa la wax na kañ la doon bis bam ganee addina moom fële ñu naa daarul alim moom la wala fii waawe ndaam cheikh abdourahman ma fa woon muy ñetti fan ci tam xarit sëriñ bu mag bi ne bërit ne ma wool sama xarit am gan gu doy kiimaan nañu ma wool cernu mu ñëw ma wax ko lool musula xew fenn fu fii cernu ñëw lii la yónni daal ñaan danaa la nga tudd gan bii sa wii na gudd ngir loo dajeel duñ ko tudd yomal xiyaam du gis saxaan ku gane addunay ramu waxtu màggee di ramu ñu xam ne gay de daa yëmu ba muy dikki woon moom bu newoon ay endo foo xam ne bii kenn ko siin jar na ku ne jaay sa cosaan ba teg ko sàkku ci ñaan lii tax ku juddu seeti ko ku faatu it nu woowi ko bambaa ko wax nu topp ko ngir kum jullee nga dem ji kon nag bu nekkee fii fi nun defal li gën ci nun nu war di sant yàlla nun mënoon na koo feneen wax na ne suuf sa cerno aw ba mu koy tuddi nit ku fa aw dana la jéggal kon ku ñëw ci màggalam bii dem ji naan yow la raw caag dundam sàkku ko tey caag dëddoom ngir jëmm jee dem waaye ruum mi ngi ci leer it ay di naan ndem fekke woo seex jiili yow jaaral ci yoon bi waaw mooy jaamu yàlla jëfu yiw kon buñ ko seen dañ ne fa seen yeneen ba dem na yaati at seex bamba feeñ ni ko tewit di tagg rek noor nawet ba jot museyru ak asaan seex abdu xaadir dem na tey tey nag bu doon dund ba tey moom bu demee jëf yaa fi tey royal ci jëf yi mu jëfoon xaaral wax la ay jikoom ndax le nga top ay jikoom sunna si kat da ami góom ngir mo ko da faj du kanen maamalatu malatu nas nak li mu ci def mom lépp a jag mësula sàkkal kenn nu dégg mësul di yéene nit safaan kër yëpp yam fi mom da bel ni diine moko mom da mel ni da yor kusam daa mel ni moo wutu yoneen moom amul a kër gel lu ku ñëw may la du la dig diine tey ñàkk na njëg lislaam ji ñàkk na balaar ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub mooy suuna si doonu ci tiñ ba ëbb si mel ni gob bi la yoroon sunna dafay ay xeeti xeet am ci yu am yu am ci yu am ci yu seex jii lii yëpp la defoon danaa la jox menn misaal tabaski gii laa lay misaal sunna yi metti duñ ko sunna yi koor moo jiitu woon seex jii li yow ma woor woor arafa yii yëpp nag nga ba ko fa danaa damay roy man yonen yonen ba lum saxaloon seex jii li def ca lam ma lu tuuti man su nii dëgg nag la waan li nit ñi ñëpp sàggane bàyyiwuma mag ak gone seex jiili moom fii la ma képp koronu asamaan mooy fonk ëpp dël bañ a war moom lum la dig faya ko bor moom lum la dig loola la nar lii rekk tax mu néewi noon mooy fonk ëpp dël bañ a war moom lum la wax faya ko bor moom lu mu la dig la nar lii rek a tax mu néewi noon mooy fonk ko ab dëel moom lu mu la wax faya ko bor moom lu mu la dig la nar lii rek a tax mu néewi noon waxtu wu mbooloo may daje muy julli it mbaa ñu daje mooy jëkka teew ajuma ji kenn du na nañu xaari limaan tëbaski mbaa calaa ko gën wati kenn ne moom laay liggéeti otom ba moom ngay njëkk seen saabu desee fukki minit mu ne gede nañ jege kat ngir weñ gi mën sikk kat wala mu paan yeexu doxiin ren wut rondoo moom ciy tey ku koy sàkkal moroom ci ni mu daa jaamo boroom yaay daq wër a war waraan ngir yaari mbir yi fi am وما أمروا ما فيهم وما خلقت نار يلم سيخ جيلي في لمنوان كن لا سني ولا فرط نكو جلل نير قدو من كنا في لام فرط جرن من نين كن لا مام سني ولا فرط نكو جلل نير قدو من كنا في لام فرط جرن من نين توغين ولب سنلل waxtaan wa lépp sunna la xam naa ni jëmm la ju kenn xamul woon lu mu daar julli ci mbooloo leen ci am masumaa ko am juróom fukk teg juróom lii la ñu nekk moom waxoon ñaar fukki at ak ñett it mus la wuutekat lu dul ba muy aj màkkakat muy weeru aj googale waan ak ñetti fan ya sun boroom waajale jëmam jooja moom la jiitewul julli juróom taxul mu faat ko benn yoon mësula faat waxtu juróom ba nii mu wuy jee suñ boroom julli na ba mat sëkk moom ba yàlla woo koy liin dibee jañu ko mu gis taxul julleem nga genn des mun la taxaw ngir yoru taxul farata genn neen wéri dina yokku wéram fu mu ma ngay sàkku ngërëm jaamu ga dan ko daa yërëm du tayyi baa mu jàmbatoon te nii mu mel ci ak magam baa di lii wit ñi ko xam nee nañu lii moo masaam su ndaam si moo ci manoon fépp fu not du mës a du nangu ab di fa jib nee bu ne ci jub sab contrat nga si ñëwaa bu not daanooy jógal jàkka ja daa di cay jawal ku buur bi woo ne la ñëwal nga naa màggale du yoon nee julli daa am ñetti xeet te ñetti xeetam yëpp xóot ca digg am na baat kenn mën la topp ñetti yoon njal beenu waxtu dafa te digg waxtuwaat dafa am baba jatal waxtu itam am na ci ñooñ mooy seen jëfeen seex jili nee na bopp bi moo ko gënal yow dongo bi jéema la roy sa sang bi fu nodde jullil dem sa yoon seex jili nee na bopp bi moo ko gënal yow ndongo bi jéema roy sa sang bi fu nodde jullil dem sa yoon gannaaw sa waay mooy ilimaan bu ne ca bopp ba du maamun na topp ilimaan wago duuteeg bopp yoon gannaaw sa waay mooy ilimaan bu ne ca bopp ba du kiimaan maamun na topp ilimaan wago duute bopp yoon ku ne na cib sëriñam seex diili moom lée di mbiram farab wa nee tëll mu jam te mus la mooy nag yoon kër gu ne daam les famiin kër jéeli julli lañ famiin ak sunna xayrul aalamiin moo tax ñu def ñu ilimaan kër gu ne daam les famiin kër ji li julli lañ fa ak sunna xayrul aalamin moo tax ñu daf koy limaan nim fonki julli xam ko boo ko xamul ma ubbil sa nopp déglu ko nim ko yitte woon nim fonki julli xam boo ko xamul ma ubbil sa nopp déglu ko nim ko yitte woon nim fonk julli xam ko boo xamul maax la ko ubbil sa nopp déglu ko maax la nim ko yitte amoon na bis muy taw di taw di taw di taw di taw ba fépp taa ba foo jog mel ni ak siyaat nit ñaa naa jullil ci biir ngir fépp fépp dafa diir te taw bi daa bari te foor naat mi ngi ngëleen mu jël parasoolam firi di xuus ca wal may terteri kanam nga leer di ler leri ismaar la la woon ba mu julee ba ñëw mu ne yëre yu tooy du maata ne yëre yu ñuy xoyof ma ne nan jaamu rabbul alamin soixante-dix-huit muy ngelaw ba kenn gisul fu manaaw ajjuma jooje ci la xew Tuuba la woon jikka kusaan seex jili toog ca fotoom naa jàng leen yéen yaa salaam bañ ne allah mu mel na daam ngelaw tungan tali limaan seex jili bam jullee ba ñëw ne seelu naaj seelu ngelaw muy wisal nga seelu taw mbalkam yeneen ba doo naan seex siili bam jullee ba ñëw nee seelu naaj seelu ngelaw muy si nga seelu taw mbalkam yeneen ba doo ca naan naajul tawul te ngelawul te suñ borom daa leblewul fu nodde tee nañ jubal ca jullikaay ya benn yoon waxtaan bi moom gannaaw du jeex digal li moom bu ñu ci yeex julli gi doo toog ba féex muxtaar bi xam nañ nu mu daar seex jiili jullik sunna ga ca ngay gën yéem farlu ga ku faatu kaak juddu ka du tax mu soppi lam naraan seex jiili jullik sunna ga ca ngay gën yéem farlu ga ku faatu kaak juddu ka du tax mu soppi lam naraan magam ju baax de soxna may keroog ba muy wàccub liggéey ma fekki xaadim gën ji baay taxul mu soppi aw doxiin sëriñ bi ñëpp ñëw di jaale seet di yëm xew dongo yi yëpp lënkoow ma wax la nag nan la ba julli yoor yooram bi jat mbooloo ma toog dugg ca julli ko kat wir dafa jàngal xuraan julli su naan sax du ko faat du ne ci mbooloo tax mu faat yow ko topp bëgg a faat farata nekkuloo ci yoon waxtu wu nekk la mu war a def dana ko def nag ngeen def te du ko wàññi du ko sof programme la yore waan julli gu nekk la a def ci xeeti jaamu yem ko sëf te mosu caa sef ma wax la yow mii xamul seex jili nii la daa xëye setam daam mu xaye njàpp mu sax la daawee roy na sëriñ bi ak yonen daa lañ ak suba teel di ko joxoñ sunuy butéel mu dinu moo ngiru cofeel buy dàq njàqare la waan gannaaw fajar di jóg taxaw jublu ci lum di lu xew suñ ko waxee mu xam la xew mu jëf ca la ko waroon moom daana seet ku wopp te daana jokk mbokk daana julleet ku faatu ka kilifa ci bëggoon kilifa ubbi fajar di jiite mbooloo si kar ku ne mu wax la mu nar ku ne mu xam ci fanaan kiy jiite julli juróom bis bu ne ngay génn juróom mi yoon ku ne nga xam yitteem dongaam bu ne dana ko miin kuy jiite julli juróom bis bu da ngay génn juróom yoon ku ne nga xam yitteem dongaam bu ne dana miin seex jiri loo xas ba miin du soppi woo wew doxaliin xaaral ma wax na man la miin maag sama waaja nañ jafaat taalibe bu war a tukki tay tay da war a tukki mu bëgg ñaan bu ko gunge mu yal fandoo ko muy rañaan ma ko noon koy sama waay danaan ko gis léegi sa waay mu ne ma tey laay dem sa danaa ko gis lu ngoon ma ko danga ko gis bu wóor dana la ñaanal ñaan bu lii ma la wax ci weeru koor lawoon ma wax la nan defoon kooka doon dem Amérique six heures ci ngoon la war a nu xëy Dakar jublu si naag Tuubaa fi bi sàkku ñaan onze la génn nu siyaar deux la àndaat moom Dakar cinq heures la dem moom toog xaar six mu dugg roplaan doomi Sëriñ Tuubaa dagam saa demee ba biir këram da ko gis gisit jëmam faw moom ay kiliyaan tisbaar bu wirdee ba mu jeex day daal di am astaasu féex sunna si lay dundal mu jeex mu liir fa jàngal xuraan kilifa lay dallu bëccëg tisbaar ba takkusaan du jóg su ko defee mbir yëpp jag salaat su ci la seex ji li gannaaw takkusaan attaaya lay xiim yëpp naan lii lépp ngir roy suñu yoneen sunna la roy ci lu mu doon seex jiili gannaaw takkusaan ataaya lay xiin ñépp naan lii répp ngir roy sun sunna la roy ci lu mu doon seex jiili gannaaw takkusaan ataaya lay xiin ñépp naan lii lépp ngir roy sun sunna la roy ci lu mu doon gone yu ndaw yee ndaw a ndaw ba ci perantan sax yu bu sëlmalee timis ñu daw siyaar si ñoom ñëpp lamiin bu sëlmalee gee wàqaat lay jàng daa ji siwaat jajji fa as waare waat léeg-léeg mu tafsir alxuraan ku yàlla boole ak kile ñu lay tuddi tudd kile dongaa ki doom laa yemale bul yeexe waxtu benn yoon lii mooy julli lu seexu naa Seex Abdu Xaadir wàcc naa farata lay julleeg sunna lii moo ko war mi ngi ci waan kilifa mooy joxe ndigal taalibe moom la ñuy digal julli ñoo ci yam jullil laa taataay waxi yeneen ndega baroo di farata nanga ko gaawu noddu borom bi muy nuyoo fayal te faale keneen imaamu akbar ji mu doon lii benn sart la ci waan ñaareel ba mooy maanu gi waan ci moom gisi su ko feneen ma wax la tuut ci maanu gi Baxdaad mosoon na faa jugee am ab bitig bu ko jege wàcc di jënd la bëggoon ma wax la tuut ci maandu gi Baxdaad mosoon na faa jugee am ab bitig bu ko jege wàcc di jënd la bëggoon borom bitig ba nuyu ko daal di ne na ko mu ne ko njëg gii téye ko la jàpp nu leneen ëddi boo ko nee joxe sa coobare nga koy joxe gis ma ma teew tax ngay joxe biti bi naf si bëggoon mas di déglu tàgge bis rajo ba ñàkk wax di suus bëtëri jeex booba bis sëñ Afe Njaay ma nga fa waar mu daa di dem ca biti jox koy bëtëri ne ko am mu ne ko wax ma ak njëgëm mu ne ko nangam delawaan daa koo defoon addiya man mu ne ko déedéet mu man xam naa la xam naa la nga man déglul ma wax la it keneen mas na di tukki jëm Dakar fekk mu nekk ci saxaar ñuy daw bu jub nag benn gaar am ñeenti nit ñu maan na lool kay doog ci kër ya di muret ba mu ko jubee jàngi ko kat mu ni ko indi sab ticket loo bëgg a def nii lu mu doon kay doog ci kër ya di ba mu ko jubee jéggi ko kat mu ne ko indi sa ticket loo bëgg a def nii lu mu doon addiya laa ko def jëlal mu ne ko saab loxo du laal loo xam ne bii xëy laal bul ko jëfaati ci keneen gannaaw da ngay fayu saweer am lu la jëfloo ci saxaar ak kàcc lay doon du lu wóor lii nga yoroon moomoo ko woon saa demee ba fay weer boobee la addiya di war fekk nga jiital nag sa kër bañ bi demal lii laa bëggoon wa min waar di sëhëba boo doon joxe ngoon ba suba am ci dërëm bu doon riba daral ko càmbar fukki yoon ma wax la tuut ci ak cabam nga xam ne gaynde ak cabam nga xam ne du ñu yam tab yépp suu xaloon na leen daam ku ñëw di wun dimbal ba woo fa tàmbaa ñàkk njël dëkk bi kenn la fi xamul mu wax ni naa ilimaan ba mu ñëwee ba nuyu ko mu xool jëmmam ja sopp ko tax la yitee mu nëbb ko seex jili laaj ko mu doon mu ne ko aajo laa amoon moo tax ba tey jii ma ñëwoon di la siyaar di sàkku ñaan dama jógeet fu sori woon sëñ bi daa jajalu moo waajaa nga sëgg yërëmoo ngir lim ba daa xawali mu téeméeri junni la bëggoon am na keroog ñu fa newaan naa kii li wut lu mu doon téeméeri junni laa bëggoon kii daa wérul am lu mu doon am na keroog ñu fa newaan naa kii li muy wax lu mu daan téeméeri junni laa bëggoon kii day wérul am lu mu daan sëñ daam maram femu leen gannaaw nga xam ne gis na leen bawoo fu sori romb leen te tudd leen kon noppi leen fekkoon na jiili na ca biir waajaa nga beru fële gaar sëñ bi ne këccit abu béer daal di ne sëñ daam leen sëñ daal de kii li bëgg moom kenn ku dul sama boroom mënu la tee def ko moom donte la sax ne ku fi woon sëñ bi na waaja ñaaraam ñaar fukki junni moo fi am naa la ko nga paas si dem am am na loo batale woon bëggoon mu delluwaat këram ba mën a lijjanti mbiram jaaxle du am ci waa këram sëñ bi na tallalal ma ñaan wala nga toog ba alxames bu ñu demee Tuubaa li des ma jox la daay jeexal sas lii ma la wax musal la waan ni ngan gii ma fi am su ma fi doon toog bisi bis yàllante muy téeméeri bis daay toog ba alxames ca ngoon ba ñu demee lam ko waxoon la ko defal nam waxe waan téeméer la ko joxoon kum dig bëccëg bi ak ngoon waaja fabaat ñaar fu ya delloo ko naa ko aajo ya téeméer la moo doon soxla ya jullit nga bégloo nga yonen seex jiri nag lum bi dana ko def te lu mu nar ko def ndaxte moo tax ba lii la ko waxoon seex jiri nag lum xas bi dana ko def te mu nar dana ko def ndaxte du war moo tax ba la ko waxoon loxas ba génn saay loxo du del siwaat ci saay loxo boole ca far ko saraxo sa yóbbalu bopp la woon waaja xamul lu tur wa doon muy tàggu naa sëñ ilimaan foog ne turam mooy ilimaan xamul ne jiili la tuddoon ñu ne ko jiili la tuddoo xam ma woon nu mu tudd fa fi'lu Muhammadu wallaahu xayru raasixiin am na ku ñëw yit nuyu ko tabaay sëriñ Njaay fekke ko la muy siyaare amu ko mu sajju kanam nga xiin tama nga sol yére yiw ta sella sell yiwa yiw ma nga sëngee bokkul lu xew ba yàgg rek mu sàkku ñaan ba mu jógee ba génn dem la sëriñ xalaat xelam ne sëñ bi kii waxul mbiram teewul mu am lu mu yitte sëñ bi ne jiili dabi ko na ñëw ma far dimbali ko bëri ko ceeb doxal ma ko ak bu dugub mu boole leen doomi sëriñ tuubaa ko ko nuyu te addiyaalu ko ak ñàkk rek la xam nga ko lii la ko sëriñ waxoon laabir ga sëriñ yoroon waajur wa moo ko jàngaloon mu ne ko mu mm, des na leneen soo may digal ma tudd leen sëñ bi ne ko waxal des ku nekk daa am luñ ko sas man duma casalu des su ngeen waxeet ma diglu leen xam naa ne xelli kii ma gis lii nga ko jox du amee paas te man na caa jël daf ko paas mbaa bu jugaat seeti keneen xam naa ni xëlli kii ma lii nga ko jox du paas taman na cee jaay daf ko paas mbaa bu seeti keneen nañu ko dab balaa sori mu ñëw ma jox ko lum fare ba mën a àgg coobare kuy wut baax nii di wutiin mu laaj ko paasu fa mu jëm mu ko ko mu ne ko am fa fukki junni ne ko am lii yor ko soxla yeneen ña daw laaj waajow turam bi na laaj turam sëñ bi na laaj ju luy man lii ma def sama boroom moo tax ma jox ko nu keneen kër yi mu daa joxey ganam noon yi la daa joxey dëkkam dafa meloon felu ni ñam ko dàqamte ku waan manul ganam te dëkkam nim def ganam lay def dëkkam day belli yaatal kanamam dafa ite subaam ba ngoon day muuñ di reet wax ca kaw kenn du fa jóg mu di la jëw loo gën a miin rek gën a naw ak lem gwaan gwak soxla woon kuy indi kaamil ay jëkkee kay ñaan si dépasse ay tege kay ñaan si dépasse ay tege kay joxe addiya ay tege laaj kat yi rek la yaataloon ku sa di ko laaj saa bu siggee nga gis mu mooñ kay laaj di mooñ kañ laaj ji muuñ moom la du ji li na lool ku sëgg dii ko di ko laaj saa bu sigee nga gis muuñ kay laaj ji muuñ kañ laaj ji muuñ moom la du ji na lool te doo fa ñëw mu di la jox nga génn dem mu di la ñaax dalay defal te du la naax day bi ci waaju ñëw di ñaan te do fa ñew mu di la jox nga genn dem mu di la ñaax dalay defal ta du la naax dey bi ci waa ñew di ñaan li rek tax bul taxat xolam nga da musul di xat ku ñew ku na mu di la fat te musulaam xajja ki seen ndax xam nga li lu ko waral mom señ bi nag da ko beral loxo bu wér da ko nirool ak moom ñu far bokki defin ndax xam nga lii lu waral moom sëñ bi nag da koo nirool ak moom ñu far bokki defin ak moom ñu far bokki defin ndax xam nga lii lu ko waral moom sëñ bi nag da koo beral loxo bu da koo nirool ak moom ñu far bokki defin ndax xam nga lii lu ko waral moom sëñ bi nag da beral loxo bu wér da nirool ak moom ñu far bokki defeen niru na sëñ bi jëmm ja niru na sëñ bi jàmm ja bu sëñ bi doon géej lam na ca kaanaw wala doon nee ñu sëriñ bégi tëja kaadar bu koy tëj belli foo toll dégg kapp ja Seex Jiili mii a la meloon toogiinu sëñ bi la yoroon doxiinu sëñ bi la yoroon arfan bi arfin la ñu ñee ko wax ñoo fekke waan mas na ne tulli benn bis di mu ko gis fekk mu doon julli timis mag ma gi ax kii kaa gisoon kama gisoon njaaree ma ngi waajur a ngee tey dooma seen yett bii ak a jege leer gii ma gis mooy leer ga waan xama gisoon jaareem a ngi waajur a ngee tey dooma seen yett bii ak a jege leer gii tam mooy leer ga waan moo tax la seen bi yéene waan lépp mu jëf ca làmmanaan ba muy aji daa yéene waan ajaale kulli mu'minin danoon jullit bu bëgg aj laaj yàlla ci xaj ku judduwul te bëgg saa bu juddoo ci doon danoon jullit bu yéene aj laaj yàlla ci xaj ku judduwul te bëgg saa bu juddoo ci doon irham jamiya ku jur nga war a lee doo sa or lii tax seex jiilu xir yanu lu kenn attanul woon irham jamiya ku jur nga war a lee doo sa or tax ba seexu jiili xir yanu lu kenn attanul attanul woon ñii la bi àndaloon ba muy aji ma tudd ñu ma ci tëb ngir fàtte leen baal leen ma ko man man miin alhaaji baara faadilu bàyyi laa demoo ko fab yóbbu ngir sëñ bi ak moom niñ juboo jaaxal na sax ña teewaan alhaaji baara faadilu bàyyi leen demoo ko wooyilu ñu ko fajar na nga gunge sabaay day aji ren alaaji baara faadilu baay laat de moo ko wooyilu ne ko fajar na nga jëlu gunge sabaay day aji ren sëñ daam atam sëñ ibrahim ku sopp seex jiili layit bokkoon na ca yoon woowakat njàmbaar gu rëy la wane waan sëñ seex sëyam seex sooy boobu seex siili moo ko xob yóbbu ngir sëñ bi ak moom niñ juboo jaaxal na sax ña teewewaat sëñ Moodu Abdoulaye it moo dër bi ànd na ca it digganteem baayam rafet mësuñ di wuute benn yoon sëñ daam roq jatara moom boolewul jiileeg dara bu doon yonen muy ay dara ma nga caaj googale waat sëñëm di màkkam soxna may moo na tukubra ngën ji nday jarbaatu jiili ma nga kay ñooy bokk yenn ñooy fanaan sëñëm di màkkam soxna may moo na tukubra ngën ji nday jarbaatu jiili ma nga ñoy bokk yandu ñoy fanan fo waxe mbàkke ni buso wa keur sëriñ mbàkke buso mbokam ma señ zahir buso doomi sëriñ mbakken cawaan sëriñ asan fa la dess ci sunu bis boobaa ka tiis kaa baga rek la gis dal dina Allah ben yoon mbokam ma señ matar buso mo def juma gede buso jataayu sëñ Mbàkke Buso moom ko toog mat lu mu daan ab taalibeem di wéttalam seex jiili rek rek la gëm baay maamur sakku muritam bokkoon na ca ñaaji waan ñii ñëpp dañ ko daa yërëm naa aj day diis kii cërëm ñam àndaloon ñu ko yërëm jëf na ba far jëfaale leen ñii ñëpp dañ ko doon yërëm naa aj ju day diis kii cërëm ñam àndaloon ñu ko yërëm jëf na ba far jëfaali leen man doom ya sax da koo matal sunna ya daf koo col-colal kon jërul waxal ñii ma ko wax ñoo fekke waan nee ñu ba ñu kaaba ba xuddóom gaak ifaada ga wax ganak ak ñukku ga kattan nga moo leen bañu ma woo Mustalifa ba génn jëm si Arafa Cheikh Abdou Khadir jëf na fa njàmbaar gu kenn foogul woon bañuy safaak marwata nag dox bu ne moom ca jiitu nag dox na ba jeexal tàkk nag am ca ñu xaajala gul woon bam nee ca Madina daa mel ne dem na àjjana kontaan na bég na maare na ngir am na moom lam mi ba toon ba muy siyaare xabru ba ba toog ne jàkk sang ba daa dag moom bopp ba càggoo ba moo ko neexu woon amoon naam naar bu ko gis ni kaala gi ak ki ko sos sëriif la dëgg kii gis ma nga sëtoo ci sunu yonen ñëw na fay yoon na mi ko نخبط دي سيدي خميقا بمجمام قيتوغو مولاك سرين بي تنقدار سن بن عبد القادر عبد لرب القادر حب رسول الماهر فسنا خال هو الوطن يور يور لدل سبير كرم نير سنة لدين دي ودخل دهن wasabi itam hadiyatan lil jaalisiin bam ñibbisee waa jàkka ja la jëkk sedd sëri ca ña daa jullee ca jàkka ja sàppe sa ñëpp la joxoon sëñ Abdu Jóob mi ilimaan bokkoon na ca ñamu joxoon man mii di Ahmadul Amin jox na ma koppati mu saan léegi ñëw jaay tukkeem moom daana dem daaru salaam te daana dem daarul alim te daana dem daarul mannaan kilmaxa kër sëñ mustahin moom seex muhammadul lamin waa deqaleet ñëpp a ko miin daana siyaare poroxaat mirina asak jaana it ak mewnu ak longoor gëleen ak kër ma jóob ak lappa it bul fàtte ci la ngaramaan sëñ moor kebe bu kebe meer kër moor suran gële ca ndar sëñ baara jaaneeg sëñ ñii sëñ bi ràññi woon na leen sagata yit daana fa dem seexu omar saar ak ak seexu mbay jaaj xaritam waa kër ma ñaaw ñëpp ko miim te daana dem gane ji njaaj sëñ baabakar ma sant jaaj ñu naa ko mbay jaaj nag bu jaaj dem Daaru Muxti yoon yoon te daana dem gane ji Njaañ sëñ Babacar ma sant Jaañ ñu naa ko Mbay Jaañ nag bu Jaañ dem Daaru Muxti yoon yoon te daana dem gane ji Njaañ sëñ Babacar ma sant Jaañ ñu naa ko Mbay Jaañ nag bu Jaañ dem Daaru Muxti yoon yoon te daana dem gane ji Njaañ sëñ Babacar ma sant jaañ ñu naa ko may jaañ nag bu jaañ dem Daaru Muxti yoon yoon te daana dem gane ji jaañ sëñ Babacar ma sant jaañ ñu naa ko may jaañ nag bu njaañ dem Daaru Muxti yoon yoon dem gane ji jaañ sëñ Babacar ñu naa ko may jaaj nag bu njaañ dem dëeru muti yoon yoor kër baay ma yaasin sakkiit kawlax bu leen ko fàtte it ak tayba ak jiib nasru it fu ne lësin bi leen amul kañoor fu mu demul amul bawal fu mu demul amul ci saalum fu mu moom daana dem ba mbir aqi mbindéef yi moom la xam ku ne da koo jox lay aqam matal na léppam sooga dem daanaka ab yonen la waan di te yàlla rekk tax seex ji lii moom ci lii la sax lii mu jiwoon yàlla na sax caa njabootam nil amiin njaboot gi yàlla nañ ko añee ñoom ñëpp añ bu kenn diñe te nag bu gaye nañ ciru fii ciru feneen taam bu doylu woon balaal te gore woon te fonki te dëddu woon adduna laal yal na ko leewu jox yonen ñëw na ma dem kenn yebu ko murit bu nee gërëm na ko maamum lëggëm te sopp ko mësul di teewoo leneen Muhammadul Mahmud turam sëñ Mbàkke moo tudd turam tax mu sax gërëm semmal na mbër yi fi newaan Muhammadul Mahmud turam sëñ Mbàkke moo tudd turam lii tax mu sax gërëm semmal na mbër yi fi newaan yàlla na yàlla wuutu ko ca njabootam balim ji woon ñu góobi aar leen ci ndog yaag yeneen yaar rakam seexul xadim mi wuutu baayam ak magam te yàlla na sut aw fan magam yàlla na matal lañ yéene woon nii mu jàppe xaritam seex Mustafaa mi jëwriñam fab mbiri teg ko ci loxoom yàlla na yàlla sàmm leen sëñ seex na nii nga def ni la Cheikh Moustapha yawit ni la kii gomba kii ëlléer bëla ku yewwu nag jàppale leen kenn mënu leen a ngir buur bi moo leen jaxase seen buumi xol la laxase yéen daw leen tarsum leen xarit bi sëñ Cheikh Massaam Cheikh Moustapha boobee bokki xarit ak lu ñu am mës leen a bis ba sëriñ sooy bu ñëw te sooma tuuru ñëpp daw bawee ba tey nag lu fi xew xam naa ko lépp man lëmiin sëñ seex defaat na la ko war yaatal rakkam yëpp far ku ne mu jox la lay sa cër di big na yoon yoon sëñ Fallu bii la def imaam ni ko wéyal neel ca kanam lépp lu jëm ci diine tam sëñ fallu yaa cay limaan sëñ fallu mi la def imaam ne ko wéyal ndeel ca kanam lépp lu jëm ci diine tam sëñ fallu yaa cay ilimaan nee na la sëñ muudu defoon du ma ko soppi benn yoon màggal gi nii mu ci defoon du ma ci soppi ak aran sëñ siidi mii laa jox ndigal màggal gi lu koy jagal noo ci xalaat rek defal ñëpp a rafetlu lu koy jagal noo ci xalaat rek defal ñëpp muy jëwriñam mu doy ko fa def seexi fallu kilifa lu bëgg woo borom gaawaan seexul xaddiim ne kanam seex Moustapha di jëwriñam seex Fallu nekk seen imaam waaw gaa yi lii safu leen nee leen ma waaw aha kay sëñ seex sanoon ñépp nga rey képp ku doon raasaatu ay na lakk seet garab geneen saytaane yàlla nañu ko ci sunu kër gi nag mu dem ngir yàq ànda dib àndam seen ànda dib ànd yéen saytaane yàlla nañu ko ci sunu kër gi nag mu dem ngir yàq ànda dib àndam seen ànda dib ànd yéen ku leen xamoon te seexaboo yéen benn ngeen ñëpp juboo du ngeen werante ka nëbboo مناجي سير ملمين جلتي خير العالمين نقبر الخليمة دي دلمين تنيان في خير العالمين مؤار مؤار كلمات جلتي خير العالمين نقبر الخليمة دي دلمين تنيان في رب العالمين مؤار مؤار كلمات